justice Sénégal li mu nekkee jamono ji ñu ngi ñaawlu ba fu ñaawlu yem la décision euh, du tribunal de Thiès à l'endroit en fait euh, de nos camarades li ñu daanee tëjee kaso Alioune Badara Mboup ak Bintou Sambou dañ leen tëj ak seeni mbokk sur des faits inexistants ku mu neex loolu mooy dëgg ku mu naqari loolu mooy dëgg moo tax tey ñu ñëw pour ñaawlu ko ñaawlu manipulation de la justice bi Macky di manipuler ngir ni faire de la répression judiciaire faire du maintien de l'ordre judiciaire di systématiquement euh, les militants ak sel euh te até katikat ñom les gardiens des libertés et des droits nous sommes les fossoyeurs des libertés et des droits ñom dañ fi nekk pour sam ak ak fu pas de fagagal ak ak yelleefu doomu adama yi li motax ñu nañu euh, conférence euh, de presse bi ngir ñaawlu lolu, ngir ñaawlu euh, li nga mom la persécution persécution bi nga xamné mo am Sénégal jamono ji persécution bu dal nit dof waaw bu dal nay leer bu dal Abdou Karim Gueye xurum xaax bi dal Cheikh Cheikh euh, Oumar Diagne suñu mbokk euh, Sénégal euh, Assane Diouf ñu koy top di génné comme amuñu lu ñu ko jàppee ñu génné ay vidéo yoo xam ne vidéo y a un an y a deux ans y a dix ans si <laughs> vous leen vu vidéo yi dafa yàgg ñuy ut leneen mooy li ñu tàmm def ñun lay après ñu ñu nañ pour say post Facebook il y a trois ans il y a trois mois dañ lay jàpp après nag ñu toog seen cabinet waaye lan lañ ko mën a sax ah d'accord yaa wax xaw la bataille de Pathé Badiane La bataille de Pathé Badiane boobu nga doon wax sax si jublu da ngaa bëgg a wax ne dañoo bëgg a dinañ paate bajaan Macky Sall Macky Sall dinañ ko paate bajaan xam nga lan mooy paate bajaan mooy suñu maam bu jara fàttaliku bi di Maba Jaxu Ba bi France di ñu noot fii Sénégal di ñu def jaam suñu maam Maba Jaxu Ba dafa résister ne du ñu nangu ku ñu def jaam ndaxte judduwuñu jaam yàlla sàkkuñu ñu pour ñu nekk jaam mu duma français yi ci benn bërëb ci benn tund bu ñuy woowee Pathé Badiane ñu koy fàttaliku dans l'histoire comme la bataille de Pathé Badiane waaw Macky Sall dinañ ko Pathé Badiane ndaxte constitution moo ñu may ñu Pathé Badiane ko ñun sénégalais yi du ñu ay jaam ñun sénégalais yi du ñu ay jaam constitution moo ñu may ñu Pathé Badiane ko ni ko constitution bi tuddee dinañ ko Pathé Badiane dinañ ko dinañ résister noonu la ñuy doxalee quoi lii mënul continuer lii mënul wëy

suñu mbokk Alioune Badara Mboup bi ñu teg loxo